Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd établissement Mbaye et Frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee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 sant cant goo xam dañ koy biral ci turu sëñ Koso ak njaboot gi fi teew yëpp ak njabootu sëñ Fall bu sa yëpp résumé ko bu ko defee mu doon lu gàtt dafa am loo xam ni euh, mënuñu ko ñàkk biral ci mbégte mu yaatu mu rëy muy jëf ju rëy ju yaatu joo xam ni ba woon ci ki nga xam ni moom lañ cërale woon liggéey bi muy soxna Bali Mbàkke wax nañ ko waaye da doy ñu di ko baamuwaat rek di ko boolewaat ak ñaan ni ko sëñ ko sa waxee fee ca saal ba léegi mu liggéey liggéey bu yaatu boo xam ni agsi na ba fii di jàppale yoon wi bu baax ci biir ak ci biti ndax ñi fi yebal ñi ñu fekk si ak njaboot lañ yàlla dogal bis bi dañoo àndoon ak soxna jaaree tulaay mii nga xam ni moom mooy moom lañuy rend rendre fii mu doonoon suñu ndey doon suñ lépp àndoon ak sëñ fal bu sa taawu liggéey bi ci at yu bari bii fi mujjee ñu àndoon ak moom nekk fii ñu dem seeti ko soxna jaara ni ko dangaa doon ci ñun lépp ñu bëgg bis bii de ñu cërale ko ngi gis nañ li ngay daj ci fondation yi di ko daj ci yoonu murit ci taxawaay bu rafet loolu moo doon sababu li taxoon ñu jox ko ko waaye moom jëf na ci ba jëf jëf ci lu faw xa njoot ndax daggal na ay nit ay billet sonn ci booba ba léegi indi leen ba fii maa yomb ñu ñëw teew a ah, soxna maam Fatim ak soxna ak sëñ euh, Maamun mi ñoom ñëpp ñu ñëw teewal ko fii bañ na ko ba yebal fi sax mu talaa Njaay Gabon Muntaxa moom it mu ñëw teew fii jooj jëf daal joom jëf joo xam ni sëñ so ñu ngi la koy seereel yow mi nga xam ni ba muy yebal ñoom sëñ Maamun kàddoom ak lépp sa loxo la ko tegoon lam ci jëflante dara ump la ñu ngi lay seeral ni ay taalibe lañu waaye sant nañ ko gu ànd ak ñaan di ñaan suñ borom dolli ko wér bu baax te àggale ab liggéeyam fa mu bëgg mu àgg fa liggéey boobu nag nga xam ne sëñ Muntaxa moo tax mu di ko def ñu ñaan ci baaxu sëñ Touba liñ doon def fii moom sëñ Muntaxa man koy defal nga xam ne lépp alal ma yàlla na suñ borom yokk aw fanam yokk wér gi bu baax a baax mboolem lim naal yàlla na àgg tan fekk ku ñun ñëpp ñu ngi profité ci lool nag di wax ni xam naa ci niñ ko yaatale ñiy jëlaat kàddu dinañ gën a jotal ndax Baye Fall moom am xelam du mën a mat ci yenn yi waaye ñu ngi sant daal koo xam ni ab taxawaayam dafa ñëw jàppale si liggéey bi muy sëñ bàmba bi nga xam ni boroom kërum soxna maam Awa Ñang moom soxna may galas la xam nañ ni bu soxna jaara ne la ñu koy rend hommage ñoom ñu bàyyi seen liggéey doo ak soxna Musli Bousso ba bii nga xam ni ñaareelu yoon a ngi fi ñëw ci garawaan bi ànd ak ñun ñoom ñëpp ñu ñëw fekk si nu ànd ak ñun di ñu taxawu ci biir ak ci biti loolu war nañ koo biral ba ñëpp xam ko su ko defee loolu bokk nañ ci li nga xam ni daanaka moo sababoon kàddu yi nga xam dañu jël di ko fi wax li ci des dañ ko mën a jot li waaye sëñ bu sa yow de mën nañ laa gërëm waaye buñ neexeet xam ni ci ñun nga bokk bi ñu xamee ne dañoo soxla ndimbal ndax jëfi sëñ Touba yooyu defee Gabon daa bari lum laaj te bëgguñoo Touba suñ bopp laaj na xam-xam laaj na ràññee ñu ñu sàkku woon commission culturelle bi nga xam ni ñooy doxal liggéey bi di ko déroulé ñu jiital la ci ànd ko geeg nekk Sénégal ba ba ñuy dem ci sëñ bi donc yow ko àndoon sëñ bi nii amoon naa ci mbégte waaye gis kii ma leen gis seen kanam nga ànd ak sëñ naa ak njabootuk sëñ Fallou bu gi gën naa dara sama xel ñu ngi lay jaajëfal bu baax. liñ ci def yàlla na gën a jëm kanam waaye nag suñ borom dogaloon na jote bi jiitu woon lii am nga fi lu jege fukki at ñu bokk nekk fii sëñ Fall bu somi doon def ay taxawu ba def la wuta la këyiti gabon quatre séjours def la imam fii ci gabon nga am fi ab taxawaay bu yàgg li nga fi doon gëstu loolu jàpp na la ko boo dellu siwaatee fii taxawee fii fii taxawaay bu yaatu bi lu war a am la lu am solo la kon daal xam naa su fekkee dina am keneen kuy jëlaat sëñ Mamoun ñi fi ñëw ñëpp te doon njabootu sëñ bi li dale ci sëñ Moustapha mais sëñ Seex ñoom sëñ Abdou Karam ak ñi fi ñëw ñëpp bu ma mut di kale tur yëpp wax koot di ko mën a mottali ba ñoom ñëpp ñu jot ci xam ni jox nañ ñëpp seen wàccuwaay man nag bokkuma ci ñi nga xam ni dinaa yërëm kenn man buñ ma waxoon ni ma sëñ Koso day ñëw buñ nee maa ndax yoon wi neex na dama naan neex na ndax man lu sëñ Koso daj ba ñëw Gabon rek jaral na ma ko ndax damaa ne du fi ñëw mukk wut si fi sëñ Tuubaa ko am wóor na ma wóor yàlla de ku ba say yitte daw huit cent dix neuf kilomètres aller retour muy mille mille cent et quelques kilomètres mille six cent et quelques kilomètres nga ñëw ko fii delluwaat doo delloo loxo kese kon sëñ Koso ñu ngi lay masawu ci coono yi waaye nag man yërëmu mu ko ci de wax dëgg yàlla damaa wax rek li ne fi man sëñ Fallou fii ku xool nii mu demee xool yii fii am ak ñoom sëñ Koso seen jëf ni mu teel a nga xam ne ñun man musuma ñi mee tudd mosuma ñi may tudd ci sama labbe ni maire bi nan yàlla nan moom barab bi mosuma ko wax ndax xam ngeen lu tax labbe ñoom dañ ñoo def wujj te ñun am na loo xam suñ suñu labbe jiitoo mën naa am ñoom suñ ko gisee noonu kon ñu suñu jot ci day yeex moo tax daaw ma wax yooyu wax waaye ñàkkul ni bi bi sëñ ko sa waxee moom léegi xam na bëggug sëñ ko sa ci xolam ba am na yum déeyee yoo xam ne jàpp naa ni bu ca sëñ ko sa jaaree dina gën a yombal la muy sàkku ni ñu yeneen barab sàkk ni yeneen barab jàpp dee fii ci dëkk bi te loolu sëñ ko sa xam na ko waa incha allah kon nag kon nan dara suñu xel te dox ndànk te bàyyee suñu kilifa ñu bàyyee leen dox bi ak ye lijjanti biir ba te ñu topp seen ginnaaw te xam ne li taalibe yëpp bëgg loolu dinañ ko am maa ngi jéglu baax nag ndax dama doon dabu rek loo xam ni lu war a mën a am la ñu ngi sant waa port ñi fi ñëw di sant waa Moanda di sant ñi bawoo Lambaréné te ñëw fi ak mbooleem ak muy laa ak mbooleem ñi nga xam ne jóge nañ Sénégal ñëw fi seen teef ga bu leen da ngeen doon rëbbi du ngeen sooy ndax jabotuk sëñ gaa ngi nii toog di nu dégg kon lu fi waaye doon wut si loola bu ñu ñibbi yàlla nañ ko yóbbaale ci am ak wér yàlla na lépp mat damaa improviser nii rek sax waaye lu ci des rek ñu xam ne dongo bu doyee di Baay Faal rek moom moo doon wax nuñ ma jubbante rek noonu baax na wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba, Tawfekh production di si ànd ak établissement mbay et frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee